woo Mouhamadou Bamba jóg di def ay malversation yu bari ay njublang ay jubadi di jaawale poosu association bi ne ko ak poosu boppam di ci dund nag ne ko 2003 ba 2022 di door ay partenaires di def ay levée de fonds ya nga xamante ni di ci dóor ci levée de fonds bi mu defoon nag le 3 décembre 2021 moo génnee 33 millions yooyu noonu te 33 millions yooyu noonu maanaam association bi mooy doon dundal entreprise boppam moom ci ay marché boppam chèque bi def ko firnde ndax ñaari entreprise ya nga xamante ni privé la ñu naan Bamba International Business Compagnie muy entreprise moom mu Mouhamadou Bamba Diop ak entreprise ba nga xamante ni benn colonel bu nekkoon en fonction ci gouvernement Macky Sall moom Bamba Diop mu jël chegu association bi def ko ci turu Moïse Ban nga xamante moo nekkoon chargé commercialu entreprise colonel boobu noonu jël 33 millions yii dugal ko ci marché soble entreprise am loolu lañ ni bu dul sàcc bu dul dóor bu dul détournement bu dul njublang lan la Bamba nag temps colonisation weesu na nag jeex na puune yi ñoo taxaw ne la doy na li nga jël bari na te doy na te ñun xam nañ li nga jël bu baax a baax te xam nañ ko wóolu nañ suñu justice réew suñu yoonu réew wóolu nañ ko te alhamdulilahi rabbil alamin ma nga ca la mu nekk